tax nag fii kat macha allah ñaan nañ ci suñu borom a ngi ñuy nangul ñaan bi euh, gis nañ président bi jël na ay motukaayam jël na ay mesure gis nañ kilifa diine kilifa aada yi ñun it jóg nañ ñun ci ci njëkk a jóg ñun ci lañ bokk. waaw man mii ci ñi njëkk a jóg ñaan ci ci laa bokk kon nag loolu damay sant suñu borom bu baax a baax fi ma newoon rek laa nekk teggiwuma sama tànk nañ jël suñu motukaay ut ay laaf mais macha allah bañ a nuyonte asalaamaaleykum joxante loxo bañ bëri fu am mbooloo loolu kese la ñu moytu balaa bi yàlla mësal ñu ndax nag def nañ ñaan waaye nañu moytu ndax nag euh, euh, yàlla yàlla bay sa tool maanaam soo utee sa tool boo ko boo utee sa tool nga bay ko nga jiw ci yàlla da ci taw kon ñun bu ñu góor góorloo rek moytu mucc ndax am nañ ñaan bi kon yàlla dinañu dimbali daal na ñu gën a góorgóorlu macha allah xam na ne feebar bi lu am la coronavirus dafa am maanaam balaa la bu yàlla wàccee daan bëggoon alag dëkk boobu ñuy wax Chine daanaka alag nañ leen li fa dee ci ay nit kenn xamul lu mu toll ñu ñaan yàlla moom mi wàccee balaa bi yàlla na fi balaa bi yem yàlla na yàlla gën ñu musalaat ci Sénégal yàlla nañu yàlla gën a musalaat ci Sénégal